man wax dama leen ci cité rek pour pour seeni wax mais ñom amuluñ ma ben jariñ pour waxal aduna bi xamal aduna bi te lettre bi dem na hmm. fi mu wara dem yëpp dem na fa pour ñom ñu xam ëllëg lepp lu mëna xew responsabilité bi Pastef le Sonko jomay du kenn parce que ño bayyi seeni nit ñu nekk ci dëkk bi di saga nit ñi di xass nit ñi di di jema agresser nit ñi té ba pare di menacer nit ñi da mort té ko bo porter plainte duñ la faalé kon dañoo yor affaire yi diko défé num leen neex légui nako aduna bi xam ba ëllëgee nag dama ne. Hmm. dama leen wax ba ëllëgee. Hmm. Ousmane Sonko bu génnee territoire Sénégal teg tànkam Europe lu ko fa fekk rek nañ xam ne lii ñu liggéey ci réew mi moom looloo ko fa fekk. mais Abdou mais Abdou mais Abdou. fa laa yem nag pour l'instant loolu rek laa ciy wax ba jeudi. affaire yi dinaa gën a indi yeneen écrits yu gën a leer pour pour ñu continuer. non mais Abdou euh, li nga xam ni en fait on n'a pas compris Abdou da nga jot ay menaces yoo xam ni itam da ay preuves. waaw mu jóge si kan du jeex du xaaj. Tu ne du pas si kan ak kan mais Abdou ne si c'est da ngay euh, euh, est-ce que ñom euh, am len ay carte parce que wa passif. la li ngay def ni Abdou wa passif. sax wa un en fait acca wa passif. la wa un la xamne ne ñoom ay carte mam Pastef wa passif. ñoo may de mort wa pas ñoo bëgg ñoo ñooy pour jéem humilier que justice jàpp ma ñoom ñoo may provoqué chaque jour dans les plateaux télé da ngay dem ci site da ngay dem ci presse sax di liggéey ñoo lay provoqué pour xeex ak yow am na fii ma toog dof-dof lu nañ ko ba waa Pastef la. am nañ sama yoon newu waa Pastef lañ de am nañ ko amuñu ko waa Pastef la l' essentiel daal mbir mi close na. ku ci nekk na nga assumer ses responsabilités lettre bi moom. dama ne mais Abdou est-ce que xam nga lii le na bañ a laisser. sama yoon ñoo xam. Euh, le bureau yow yaa yaa ma yab boo xam ne itam dañuy yaa ma yab parti Pastef ñoo may menacé de mort parti Pastef ñoo may tooñ ñoo may provoqué parti Pastef ñoo ma duggal ci kaso bi te loolu du am. parti Pastef ñëw ne ci dëkk bi sax global di saaga nday nit ñi waa Pastef a koy def mais Abdou est-ce que ay ennemi feneen wala yi nga am ak yeneen ennemi Pastef la am ennemi Pastef ñooñu jëla la lu leen neex nañ ko def Pastef la rek waa Pastef sax ñoo yor jaas yi nekk ci mbedd yi di dàq nit ñi comme Momo euh, Koungheul ñoom la Pastef la je le dis je le répète Pastef ñoo may menacé de mort Pastef ñooy nekk di jéem a tànte te yooyu du jàll la nag àdduna bi yëpp nag moom yëg nañ ko déjà àdduna bi bi yëg nañ ko lettre bi moom ouverte la jomaay sax mën na cee jot ñoom ba jomaay dama ne la Bassirou Jomaay Faye Ousmane Sonko Pastef ak waa këram bu leen neexoon lii mu jeex dañ koo bañ tamoo tamoo ay antécédents ak keneen aw ma man dëkk bi ñëpp ma bëgg ñu bon ñu dong ma bëggut mooy ñamay bañ a tudd ñooñu nak ñooy def seen yëf yi dof waaw ñamay bañ a tudd en tout cas daal lu mën a xew. lii mais lettre bi nga ne déposé nga ko. fépp fi war dem yëpp dem na fa. mail yi rek moo des copier ko def ko par mail adduna bépp dinañ ci jot bu soobee yàlla. Hmm. ñoo xam ne benn jigéen moo Mo moo yuuxu woon viol ma taxaw ne nañ ko protester jigéen ñëpp daw woon ko ginnaaw ndaw sax génn na dem ma fi dess ñu bëgg ma fonto te loolu du jall loolu du ko kenn du ko fi nangu aduna bépp nag nañ ko xam te njiitu li xew li yëpp njiit li Ousmane Sonko la. non non non non non Abdou non Abdou non Abdou. moo am ak problème bi jigéen gi di jigéen ji kan la jotee. Abdou Abdou tey Ousmane Sonko il est un premier ministre. li ngay wax waxuma ko de Ousmane Sonko moo jotee jigéen ji ma dem di ko jàppale problème yi yëpp moom la bu jotee wut ak moom lu dina am moo jotee ak moom ndaw si porté ko pelente ñun ñu taxaw ne justice def liggéeyam ñu ñu ñu bëgg ñu ci fat ak ak ak passif man xam Abdou Abdou Abdou. nous li day de dama ne buñ ci réew mi di ak réew mi ñu réew mais Abdou est-ce que tamit naan Abdou peut-être euh, du def recul euh, étant. man parce que ñu yow sax protéger sa en euh, observant. Euh, que facette lu dul euh, di attaquer tout le temps li nga xam ko ah, régime en place di wax euh, li xew ci dëkk bi concrètement wa légui li xew ci dëkk bi wax ko crime la wala délit. non mën na wax li xew ci dëkk bi 100% pourtant ñu senti ci ben attaque envers le régime. fi mas na fay attaquer kenn man fi man hmm. attaquer man position défense la taxawé da di dóor bal bi ma delloo la bal bi bu wax ci réew mi jotee ma wax la ci réew mi mais ku ku yow ñaata nit amna ben boy mu newoon ci buggaan caporal barki démb nu mujjee toog télé di ma menacé Azura bi may menacé wala fa jëre la toog télé télé fa la xanaa doo wax bokkul Pastef waxal donte amul fit mais Pastef la bokk kooku moom doo ko laam-laam kon bu ma nee waa Pastef la yow yaay wax naan bureau Pastef waaye seen téeméeri xel xalaatu ko te dañoo war a def très attention nag xam nga lettre rek laa bindagum am na yeneen yoo xam ne bindaguma ko te buñ ma ci poussé ma bind ko lettre bi moom avertissement avertissement la pour ñoom mais am na yeneen ak yeneen yoo xam ne su may def deuxième lettre ci lay dugg. mais Abdou des fois ñi ngay xeexal. ñoo xeexuma ak kenn man réew mee ma ñor. ñoom ñoo ñoom ñoo yor lépp. man xeexuma ak ñoom. parce que waa Pastef tout le temps ngay du tudd mais. bu fàttali waa Pastef tey ñoo nekk si nguur gi. déedéet jomaay nee na moom bokkul Pastef waaye moom daa seetaan jomaay nee na bokkul Pastef mais daa seetaan li waa Pastef di def bu ko neexoon léegi mu jeex ah. nii ñu nekk nii di fontoo nit ñi menacé nit ñi bu neexoon jomaay léegi tey laa xoola matu ko mu jeex moitié journée mën na ko régler parce que am nañ police bi am nañ gendarmerie am nañ justice bi mais nag bu dee Ousmane yilif justice bi kay du gaaw a jeex léegi nag am na feneen fu ñu koy jeexale ji c'est-à-dire que men dag ñuy mën a may ñu toog ci dëkk bi dund normal mm. nga bañ ñoo indil benn jafe-jafe ñu toog feeg yow dundandoo ko soo defee lu baax ñu ne gongo boo deful lu baax ñu ne baaxoon mayoo ñu ko ñu ne la kuppal réew mi waaye yow nag fañ jëm moom dañ la koy interdit bàyyi la sa réew waaye fañ jëm yow dañ la koy interdit yow moom doo fa tegati sa tànk continent bañ nekk moom yow moom c'est fini yow jàppal ni c'est fini nañ la fa rouge na leer un des deux mën a am tous les tous les armes nag yu ma mën a jàkkaarloog ñoom maa ngeeg moom awma am bàyyiwuma dara bépp arme boo xalaat bu ma mën a jàkkaarloog passif maa ngeeg moom bépp arme boo xalaat nag boo xam ne mën na jàkkaarlook ñoom benn journée lëmm mu tàng jër ci ñoom mën na ne man je n'ai rien à perdre li mën a intérêt mooy nañ ma may jàmm ma wax li ma bëgg a wax. may ñu ma jàmm di ko continuer. billaahi wallaahi wataalaahi dinañ àgg foo xam ne. ñu woote jàmm ñëppay tax gémmiñ. ne ah lii de yaakaaruñu woon ne mën naa ne. tey moo tax dëkk bi kenn da koo moomul nañ bàyyi xoqotalaate bi. nañ bàyyi tiitalaate bi xam man sax moom waaw xam man sax moom tiital ma yàq tiit la waaye dama ne lettre bi avertissement dong la te nag ñi ci war a jot yëpp jot nañ ci maa ngi toog ne patt di déglu xam nga su ma neexoon ministre de l'intérieur laay bind ne ko da may wutal sécurité parce que damaa na ci réew mi te te dama ci am droit mais moo la gën a yëgle xew duma ko bind <laughs> dama koy bàyyi toog di ko xool bu dee moom moo yoree sécurité réew mi te am na doomi réew mi fi nekk di menacer seeni morom te waxu ci dara kooku jërte wax dara dangay ngay wax ak nag waa bitim réew ñi nga xam ne ñoo yilif Sénégal alors euh, si noonu exactement Abdou wax na ko sànq euh, li ñu itam di ko dragie baaba euh, par rapport ak li nga xam ne que mu di le procureur et je pense que procureur mat na xeetu mat boo xam ne Abdou kenn du ko nii dafa nii defal na leen

kooku kay moom kon procureur kay génne leen ko ci. kan kan moo wax. Ousmane Sonko lu mu wax lu mu wax. nee na man man maay ki nga xam ne ku ma woone nañ la jàpp dañ laa war a jàpp ndax ñoom ñëpp maay seen patron maa leen yilif wax ji leer na euh, yow loo bëgg a déggati maay patron ba pare li gën a garaaw mooy ñu convoqué ay militants passifs mu ne lu tax ñu leen di convoqué. non Abdou il faut euh, retransmettre nañ tourner retranscrire gis wax dire. je wax Sonko Je la bu je neexoon léegi menaces gi yëpp je ci réseau yi di di nit ñi mu mais ñom la neex parce que Sonko c'est militant ñu koy dund lolu dama ne la ah, justice Sénégal la justice Sénégal police Sénégal. mané buñ len buñ len buñ len joxul ben ordre bayi len rek ne rew réew mangoog yii ak yi sitel len ne yi ak yi na fi jeex legi mu jeex fi dafa am bande bu fi nekkon ino yàlla nako yàlla yërëm Abdou Diouf ba mu note gendarmerie ne pour mu jeex yagul mu fay waxuma naan ay gone yu juddoo gudd barki démb ni def ni nga leen di xamé def vidéo ni ne ci rew mi directeur police rek dama jël le sax gendarmerie directeur police rek nga jox ko note bobu mu régler la bu ñep kenn dudul menacer kenn parce que man nag ba ma dalay wax ba tey amul benn yoon booy teg sama vidéo tiré ci infraction waxal amul ku ko am na ko génne moo tax man sama dossier boo ko yóbbulee procureur da ngay tardé parce que moom lan la lay wax maanaam bu ko xoolee la léegi la bu may topp bu may toppee xamoo ko léegi nag comme ñoom jànguñu droit ñoom le les les les moutons là hmm. di di harcelé ci kaw nit ñi duñ ko nangu nag. ñu ko nangu parce que ñoom dañuy gis dara foog ne infraction la ñu gàdd ko lagar-laga ci réseaux sociaux yi non nañ ko wóolu lii mu wax fekk loolu yoon waxu ci dara. tamit ak tamit wóor tamit da see am solo Abdou xam na euh, xam na ay kàddu peut-être des fois euh, ni nga koy waxee du garaaw suñu xoolee ba si biir mais na nga koy waxee mooy xaw a yéeme concrètement Abdou des fois ñu ne si bàyyi xel à travers euh, ces communications. waaw comme neex saaga Abdou waaye Abdou daal du wax. du la wax la naqari yow militant yi garaawul mais Sonko ak Bassirou Diomaye. ñoom dama leen a mas a wax dara lu garaaw. ah loolu de sa am moom fàllu hmm. ndax àggaguma fa asura àgg ak jomaay àggaguma fa de àggaguma ci jomaay ndomi nit ma naan ko 72 heures na deñ jomaay de mosumaa jël kàddu gu ñagas teg ko ci kawam ay jëfam nag dinaa koy nettali moom bu wax ja ñaawee rek xamal ne jëf jaa ñaaw ko tamit ay jëfam laay nettali bu xamal ne samay wax heure bu ñaawee xamal ne jëf ja la loolu daal jàpp bàyyi ci xel. netali jëf ju ñaaw nak du deli du deli de Sonko jaar ni ci wetu veden bi mané ne Sonko romb na fa xana lool du deli bar bi Sonko fi dugg mané ne Sonko duggoon na ci bar bi lool deli la <laughs> na fa baña dugg rek justice sos lay bañ ak difamé man difamé ma sosaluma kenn lepp lu wax nak bo tegee kamil ñëmé na ci door sama loxo ma tax avertir na dal pour mu lèr lool la ci wax.

Euh, euh, euh, est-ce que nga taxaw pour jukko yi war a mun a baaxaat nga taxaw pour lépp war a mën a delluwaat si ord bi pour pourquoi nga bëgg a jël attaque yi bëgg koo ficeler directement si benn camp bi bàyyi ñeneen ñi. daa am koo xam ne lu baaxee moom la bu bonee mooma mooy ki jiite kan moo jiite parti passif bu baaxee ñooma bu bonee ñooma xam nga lu tax jox nañ leen li war a baaxal jox nañ leen li war a bonal mën nañ ko utiliser pour mu bon. mën nañ ko utiliser pour mu baax xam nga lu tax jox nañ leen justice jox leen tous les forces ne leen yéen lañ ko dénk fii ak juróomi at waa xoolal rek encore ñu jël force yooyu di ko utiliser contre seeni adversaire loolu jikko ju bon la nañ waxante dëgg ku waxul lii naa fekk nga bañ ko dénkee Macky Sall ñu ne da ko doon def du loolu tax ñu nangu ko Macky Sall dénk leen ko ñoom ñu wëlbati ko def kon Macky Sall leen gën moo tax ci ñoom rek laa war a tiire kon parce que nag la taxoon ñu jox leen defuñu ko buñ ko defoon man dootuma exister pas topp presse pas topp euh, maison de presse yi may liggéeyee nga naan leen reconnaître luñ leen di leen indi problème affaire bi du loolu de. xam nga affaire bi lan la. ma ne loolu affaire bi du loolu xam nga affaire bi lan la mooy da def loo xam ne Abdou Nguer mi moom dootul mën a wax wala buy wax lu baax lay wax. loolu rek mooy moo régler affaire bi maanaam c'est-à-dire que def acte yoo xam ne. dinaa dinaa tax kii tëj naa ñam donc Abdou nekkul ne donc Abdou nekkul une boo xam ni. déedéet gis lépp ni baaxul. bu teg benn pas bu baax soo ma ci laajee man laa lii de lu baax la lu ma rafet rafetlu la te na gën a bari mais bu dee lu ñaawit man noonu laa koy waxee de parce que dama newul ci soldu kenn sama ñaq ak sama compétence ak nit ñi ma bëgg di ma topp man ci ñooñu laa nekk ci di fexe di wax loo xam ne da leen di jariñ waaye dama ne. Pastef lii ñu fi nekk ñépp a ko xam jaay doole gi cëppi cëppi ci kaw nit ñi fuu yaa ngi gi beewaa ngi gii ñu nekk ci réew mi ñépp a ko xam bu fekkee nag da koy wax ñu lay menacé acca nañ ci dem waaye da tàkku saana ngi ñëw boo xam ne Pastef bu ñu moytul dinañ ko fi am dinañ jooye jooy ba sonn hmm. te yéeneewu leen ko nag alors euh, encore une fois euh, ñu leeral benn miir Euh, Abdou chroniqueur le si fi s'il li nga xam modi télévision bi joxuñu ko benn occasion te itam saagawuñu kenn je pense bien ñi def suñu li nga xam modi euh, parce que à un moment donné euh, li nga du ne premier bi judd donc Abdou chroniqueur le comme Arfan nous fi nekk chroniqueur di le matin Abdou di fi tous les mardis ak jeudi pour waxtaan sur l'actualité actualité bi donc invitation encore une fois chroniqueur la ñoo no fi Euh, si li xam ne moo di Sénégal 5 TV une petite précision peut-être pour ngeen war mën a comprendre li waral ñuy amal moom ak waxtaan alors ñu daal di wéyal ba tey euh, mbokk yi jëm si wàllu. loolu na ci ministre bi jot. ah na ci ministre bi jot. ministre bi ne reconnaître leen ne leen ci jot. alors réew mi ay sàcc dong lañ fa du reconnaître waaye ni ñuy def ah. seen liggéey nga naan kenn reconnaître leen te reconnaître Ndeye Khady Ndiaye. cey lii.